je croyais que le sax président de la république di wax dama il va resserrer les Blancs. mais j'ai vu que ne dafa desserrer vraiment vraiment les Blancs complètement et je trouve que situation actuelle du pays euh, c'est dangereux surtout trois régions yi nga xam ne la lim moi je pense que ces trois régions là dañu waroon le confinement total pour sécuriser les autres régions mais li ñu ubbi nii euh, yal nañu yàlla dimbali ba mu bañ a vague parce que de plus en plus tous les jours on voit que la situation se dégrade et loolu euh, day indi lo xamné ne euh ay problèmes yo xamné ne euh, yaakaaruñu ko won sax. man suma ma comme que affaire bi dañagul te ñom ñu ngi sax ñu ñëna kay yokuna na 23 heures bi nga xam la doon am.

bi couvre-feu bi doonee vingt trois heures si lañ obligé tamit di wàcc ay vingt heures vingt heures et quelques yooyu noonu. suñu obligé bu ne noonu wàcc seize heures il faut que ñu wàcc seize heures bu ñu ne ñu wàcc dix huit heures il faut ñu wàcc dix huit heures. mais kon ni mu dindee kii bi nii ah alhamdulilah ni ñaan yàlla rek yàlla jële fi corona bi rek ñu mën a continuer suñu liggéey parce que mu ngi doon indil ay tardement suñu wàllu aluminium beek verre ak yooyu noonu léegi.

dafay bax aussi nit ñi mëna a delluwaat seen activité euh, delluwaat seen activité cela ne veut pas dire que fàtte feebar bi ay affaire yooyu mais dellu suñu activité ànd ak suñu xel def li ñuy def ba mëna moytu feebar bi ndaxte lever état d'urgence bi moom il le fallait à un moment ou à un autre parce que tamit bu ñu lever woon état d'urgence bi askan bi moo naroon a étouffé wu te loolu tamit yaakaar naa ni président bi da ko gis xëy na bëggul loolu. je m'attendais à ce que. au moins ñaari région yi nga xam ne feebar ba mu ngi fay def tulleeg màlle mu di Touba ak dakaar ñu jël ci ay mesures draconiennes là moom je je m'attendais à ça mais lii ma gis nii daal abandon de la population daal la ko mën a tuddee. bi bi moom metti woon na trop parce que da ngay xëy boo xëyee ñu ne la nga war a wàcc euh, vingt six heures parce que dëkk bi boo waa bu ñu la jaafee dañ lay dóor dañ lay kreel xam nga métti woon na trop mais ne comme que feebar bi day soog a ñëw te ñun sénégalais xamuñu ko président wax député bu wax ñëpp wax ne nañ def nangam ak nangam te gan buy ñëw te xamuñu ko ñu koy gis ci télé bi muy rey ay nit centaine de personnes te ñooñu seen environnement dëkk moo gën suñu dëkk ah mais liñ nit ñi wax lañ mën def mais début bi ne moom métti woon mais bi ñu demee ba ci biir ñu gis leneen liñ lañ gis fël ak liñ gis du benn boobu war nañu mën teel xool tamit changé doxalin bi xam li ma la parce que tamit aussi àdduna boo demee ba nga xam ne lii ñëw xamoo ko mais boo demee ba turbe matukaay ba xam lii la demee war nga mën a ñëw ñu xool ne ah lañ yaakaaroon mooy am ak li am du benn. dañ doon ragal benn instant par exemple li xewoon feneen yeneen dëkk wala yeneen continent mu am fii mais yàlla dimbali nañu loolu amul fii xam nga donc on a moins moins vraiment de mort loolu tamit ñu ngi ci sant yàlla mais ba tey ñi si gaañu sax ba tey euh, benn nit bu demee rek ëpp na wante ba tey ñu ngi ci sant yàlla par rapport ak yeneen dëkk yi même suñu dëkk yi nekk à côté suñu à limite dëkku limitrophe fii les pays limitrophes du Sénégal ñoo ñoo ëppale moor donte am nañ ay cas yu bari cas yu bari na mais ñu ngi wër aussi cas ñu ngi wër les sénégalais aussi euh, dañu xaw a aussi parce que lu su bari lo xam ñu ngi leen koy tere duñ ko def xalé yi li nga xam mo leen jangi mo leen ñu regrouper wu nek si terrain de football yi ñi nek terrain basket ñi nek terrain handball bi ma si gëna déplorer nak moy euh, ñi nekk géej géej soo fa demee sa xol fay jeex parce que euh, état bi pour man sax dañu waron jël ay mesures draconiennes au niveau des plages euh, même bu fay def ay poste de police ñu def ay poste de police même buñu mëne mënee réquisitionner l'armée sax ñu def ko parce que situation bi l'heure est très très grave au Sénégal. man li ma si gëna a ñaawlu moy indiscipline sénégalais ñun sénégalais dañoo indiscipliné ndogal mom top ndogal sénégalais foru ci dé man loolu def naa jàngat boobu sinon li ñu waxoon buñ ko defoon intrinsèquement personnellement individuellement de manière responsable amana peut être kay ñi am tay duñ ko am waaw lool moo tax nag ma ne euh, feebar bi xam nga on peut pas mettre un policier wala un gendarme derrière tout le monde nit ki yaay doon sa policier bopp doon sa gendarme bopp doon sa responsable bopp loolu su ko defee hmm, yow yaay war a njëkk aaral sa bopp balaa ngay wax aar askan bi wala xaar di président bi di naan nii naan lii suñu biir kër yi suñu gox yi suñu gox goxaat mais tere nañ ba tàyyi ay regroupement mais dans les quartiers nit ñi bàyyiwuñu ko nit dañ toog di naan seen ataaya comme si de rien n'était comme si feebar bi amul mais président ak gouvernement mënuñu contrôler loolu mais fi ñuy waxaat daal mooy comme que ci côté dund beeg affaire yooyu nañ ko waxee ak nañ ko joxee ak ni ko nit gisee du benn du dëgg buñ taxawee def nañ ay mille milliards te mille milliards kenn mun la identifier ni fii la jaar fii la dugg te am na ci ñoo xam ne buñ añee duñu ree am na ñoo ñu reeyee duñu añ jox ko ñoo xam ne ñoom ñoo ëpp dayor ëpp kii ñii amuñu lu leer ci mbir mi war na mën a gën a leer boo jëlee feebar bi rek président mënu si dara premier ministre mon ci dara keneen ak keneen da ngay wala sa wa keur fo jaar wala leen parce que la virulence du virus moy indi lolou feebar bi dafa gawa walé lolou la nit ñi xam man dama japp ni sénégalais yi amuñu conscience ci lolou ba tey feebar bi gawa walé gi mu gawa walé moñu ki mais amna ñen ñu nga xamanteni sax dañ dan ne bi amul ñu bari ñu koy wax ba tay mais biñu démé bay wax na ni aji maka amana xeyna na rendu am qui est le 5e pilier de l'islam bobu buñu démé ba wax na ni du am xam nga ni caaxaan jeex na foofu de. Euh, par rapport ak déclaration yu démb yi euh, chacun pour soi le Dieu pour tous hein noonu laa ko noonu laa ko